jërë ngeen jëf Dawid Coulibaly l'observateur nee nañu benn doomu Sénégal la bu mu door ba ñu ba mu dee ca raw réewu Maroc yéenekaay bi nañu mbuur la cosaanoo amoon ñeent fukket bàyyi na ginnaaw benn doom ay doomi Côte d'Ivoire ñoo ko kidnappé yóbbu ko ci benn àll bu nekk ca Tanger ga ca Maroc fa la ñu ko dóore ba mu jaare ci ñàkk bakkanam li indi coow li yéenekaay bi nañu moo di Dawid Coulibaly dafa àndoon ak beneen doomu Sénégal boo xamante ne ji Cheikh na Sibi la tudd ñoom ñaar ñëpp ay footballkat la ñu woon mujj soppee doon ay passeur maanaam di jëlee ay nit Maroc di leen yàpp ci gaal di leen yóbbu bitim réew lu toll ci juróom-benn fukki junni ak lu tekk moom la ñu daan laaj gaañ yi bés ñu dajale ay doomi Sénégal ay Ivoirien ay Gambien ak Guinéen jël seenub xaalis war leen yóbbu di leen dawloo ci la Dawit Coulibaly dawee Casablanca dem Tanger Ivoirien yi di ko wër ba gis ko yóbbu ko ci benn àll bu nekk foofe fa la ko dóoree ba mu jaare ca faatu ñàkk bakkanam waa ji nga xam ne moom la doon àndal ci liggéey bi di Cheikh na Sibi l'Observateur ne gisuñu ko ndax dafa daw lu aju ci moomi leen bi dolli ñu ci ne ñëpp mu di Dawit mi ñu rey ak Sibi mi ñuy wër yéenekaay bi xamal nañu woon yoon kenn ki jot naa football ca quatrième division ci Italie ki ci des toj na championnat bu Sénégal mu di Cheikh na football fële nga xamante ne ji moo ca Mbour football na ca Seneps football na ca Yego ñu yëgee ci xët mu njëkk Vox Populi beneen doomu Sénégal bu ñu naroon a faat ci Argentine nañu defoon George Floyd ci Amérique yéenekaay bi nee nañu noonee la ko takk der yi def ci Argentine waaye dafa rëcc braquage bi amoon fële ca Centenaire bëccëgu jiite woon congo ga maanaam braquage ba ak càcc ak rompat alalu jàmbur loolee la ñu ko jàppe woon waa section recherche ñoo ko jàppoon ca la ko dàqee ci police bi moom moomee mu jiite woon cambriolage bi benn boutique chinois bu nekk centenaire la songoon ak seenu fetal jël fa millions waa dig di ko wër ba jàpp leen teg leen loxo caméra surveillance ci la sukkandiku ba tax ñu jàpp leen juróom benn ci ñoom ñoo nga ñu garde à vue ca dikk ñu dikk ci coowal li gi tangaas ak fanta zéro ga ñu nekkee ba tax mu salfaañi justice réew mi du pexe yoo xamante ne ji ministre de la justice ba woon di professeur Ismaïla Madior Fall moo ko nas bàyyi fa ni lu jëm ci woowule wàll xamoon na ne accord yi nga xam ne moo waral coow li ba mu koy signé xamoon na xel ne gouvernement bu Sénégal du ko mën a jëfe terewul mu signé ko bàyyi ko fa le quotidien nañu ñool ñool gi nga xam ne moo am ci justice bu Sénégal naruta jur jàmm tegoon lii di état d'urgence bi couvre-feu beeg yu ni mel ñu teggi leen dafa gën a yokk joote ji ndax cas coronavirus yi ñoo ngi yokk ba léegi ci 30 pour cent professeur Massamba Diouf di ko xam-xamam màcc jëm ci wàllu épidémie moo ko xamle ba teg ci ne mbir yeeg ni muy doxee nii ci réew mi bu ñu moytul bu ñu jugee ci tabaski gi cas corona yi mën naa yokk ci réew mi ba yegg ci 70 pour cent la tribune mel na ko naan ko vérité 100 pour cent nga wax ndax ñoo ngi ak corona bi laata bu ñu noppee ci tabaski gi ñoog moom lay doon te fi ñu tollu jàpp ne mooy virus de tous les dansers ku wax wopp tudd garab ya koy fàcc pharmacie nationale d'approvisionnement njiitam di Annette Seck Ndiaye moom la journaliste yu source xëy séqal waxtaan ca waxtaan mi ngi leen di xamal ne jot na ci Sénégal ab industrie pharmaceutique am boo xamante ne ji bu ñu demoon tey ba garab ñàkk du ko yëg ñu yëgandoo ko maison de la presse bi tuddee nañu ko ndem si yàlla Babacar Sud Quotidien L'Observateur La Tribune démb ci làmmiñu boppam ba mu demee Ngaparou doon jaale ji njabootuk Babacar Touré Sud Quotidien dolli ñu ci nekk ca jataay ba président de la République leeral na fa lu bari ci diggam ak ndem si yàlla Babacar Touré la Sénégal nañu Babacar Touré immortalisé maison de la presse bi fii moom la ko tuddee dama laa war ñàkk fulla wala ñàkk fayda wala ñàkk jox cër ba yow respecté wu ma surtout yéen aawa yéen jigéen ñi nga xam ne yéen yéen pour yoon yéen a jind ci ñaari xar ñu teg comme ni nga ko daan defee chaque année tabaske benn bi benn bi nu jaay ko def ci suñuy saf-safal. yaa tegg lii. waaw. bu ma jëkkati nga ni waxee. waaw loolu mooy. neel kuy. ah kuy. kuy. yaay sa papa delloo na kuy. ray poobar yi man du si nekk di sonal sama bopp sax kii ba yeboo nga ray ko saraxa ko wala nga maye ko xool noo def ak moom. man liggéey laa xam guddi jot ma tëdd nelaw jàpp sama ñaam bëgg nga ay kebatu nag ba ay wax. yow yow yow lay dugal dugal dugal dugal papa yow nelawaan bu bon nga am ni nga nelawee baaxul dara ah. tabaski ci fajar laa ko jël incha naa la ko indil ba ca kër ga. waaw baax na naa la ko ba ca kër ga jërëjëf. jërëjëf bi ma mbokk bëgg xar mi tëbu. waaw dama bëggoon xar mi tëbu ko. ah waaw loolu sama papa tëbukat bu mag baa ngi nii xanaa déglu ko Père la grand tëbukat day xar ak ay ci loolu. yéen da ngaa bëgg ay affaire yu sumee ko trop lu ne loolu baaxul dama laa bëgg rek xam ne ne amul à distance amul danger moo tax amul daal léegi xaar ma commencé ma daal di sama karaw gis nga am naa karaw. xoolal <laughs> xar mi lu mu toll ah. bi maa ngi koy xont li may jox yow maa ngi koy def mais li xar bi di def day tiire rek. xar bi day tëb rek. tëb mooy lan xamoo luy tëb. ala gawsu gawsu gawsu kolle neel gawsu mu indi jaasi gaaw xar maa ngay dee ma ngay dee nee ko ma daw si daw si gaaw gawsu gawsu. la li ngay gi dama gënal ma xar baax nga ma indil xar mu corona kii ba mu ñëwee ci kër gi di daanu di wàccoog di di di reeku laan la xar mi dafa corona nga may def ni di ma jéema a ruube lii yëpp yaa ko def waaye nag auto solution euh, da koy yóbbu lakkul wala da koy ceeb bii dafa noir et blanc xoolal déet déet c'est que léeg-léeg day dugg ci waañ wi déet xoolal nga ne ko bëy ngay tabaskee kan ci sama yumpaañ sa lu ma ciy wax ak moom lu ma ciy wax ak moom moom ndigal lay wéyee di baal di jël décision sama ginnaaw per bay bi laay bañ a dégg ci kër gi bu ñu wax wax du bëy waxu bay laa bëgg nga teg xar mii des ci kër gi moom laay tabaske bay yi fu mu xam nañ jëm neel waaw neel waaw yar réew waay ko maa ngi ndax sa bopp rajaa noppi bu jooy noppi bu jooy kilifa nga kilifa da jooy noppi naa lii lan la ah léegi daal yow per da ngay wër say ca àll wa <laughs> am xar ci boppam bu tëboo boo ne ko jàkk rek war nga koo xam man bu ma ko laalul sax man naa xam ne xar mi tëbu na. Eh, Tange yaa ngi imaginer ñu xëy rek bëy yeeg xar yeeg yëpp rek deewandoo loolu noo koy imaginer action bu rafet la de. per gu xar tas na këram. per gu xar tas eh, na këram. per gu xar tas na këram. per gu xar tas bët yi xool. fan lay xewee Sénégal 7 point com foofu lay xewee. bés ni nga tey kër bu midi. Diop maa ko wax maa na yow Diop kaay tee maa na yow. dugal nelaw Diop taxawal ci buntu bi. doo ko fi ñeewee la dem na yow Diop. kër gi kenn dootu fi. rey na papa ja. wala sax balaa paa yi di ñëw. Mhm. nañu rey xar bi ba pare parce que jël. ban xar nga wax. Diop xar mi ko ko fi rey ma toj sa waay. eh Diop yow. wa wii ma jaamite yooyu yëpp day dudd da ngay duddee wax ji den na yet ngi yaay den nañ. jaamite bàyyi nay def waay yaa ngi may dootee den nañ ni yaay den nañ. waaw kay den nañ den nañ. dama koo dagg de. lu tax lu lekk dugub ma ne la lu lekk dugub laa wax. lekk dugub moo leen gën fuuf. boo ko joxee dugub bi ma rey lu leer laa la wax. reyal dégg nga li ma la wax rek na daal du lekk dugub. dinaa ko ko jox xanaa tey nga bëgg a toppatoo xar am col la am col la am col daan na ma. xar mi li ko desee ci dund. Hmm. fii ak trois mois. Hmm. su bruit duggaatee ci noppam lu bari mën na dee ko. oh balaa moo dee ñu rey ko. xanaa ñu rey la daa mel ni sacrifice ma téema ko nii eh. kor joor jenge. kor joor jenge moom. waaw noppi leen noppi leen doy na doy na tan doy na fi ma tir bi delloo sama wax ma des la nga dem eh. ja taa yeen ma paan bi tan waaw xaat bi moom bu ñu ko sàngee duñu ko gaaw dugal dañ koy bàyyi si mbedd bi waaw ñu xam ne am na xaw kon ñëpp xam ne ñun ñun nag am nay xaat waaw tey tabaski ren moom day day neex day day neex jàppal eh, ñu sama bay ah. jàmmi tey bi tey nii damay yéegee bandi yow. doxali ko tam ba ma ne ma def ma def la fi kaj tooli. doyul doyul doyul doyul wax bi na de ndax xay mi. waaw. yow tey yaay sëyam sa yaay. bay ma laa bay ma tar bay ma. sama yaay ñoo ko def maa koy fay bu tooba yaay. waaw tey. tey du ko mag du ko si na. monsieur ak madame. sëyam eh, bi nga taxaw ci mbir bi nga xullu rek nga wax ah Fallou Diop ñoo Fallou Diop Fallou Diop mu yor kar bi mu yar kar bi mu yor kar bi mu yar kar bi mu yor kar bi waaye xam naa bay day xam papa xam nga ran ko dem bàyyi ko xam baax rek waaw bàyyi na bàyyi Diop da nga rew yaa ngi xaru de ma ne ma ne eh, eh, lekk du fi yett xam du fi yett xar bi du fi yett ah. xar bi du lekk sañ la way bi nga mel ni xar mi yow dama lay rey de ma ne xar mi day lekk xar mi rek kay am droit lekk ci biir kër gi boo leen bëggee lekk ngeen wuti ko xar mi day lekk. tabaski ren gi man dem seeti vaar Sénégal set foofu lay amee. xam naa ne da ngeen am melokaan. femme bi wax na lu ñaaw loo xamante xamoo lu ma la bëgg a mu ne fu ma jaxaani xëy be paase xëy waay. man loo ma indi problème. yëpp yaa les dofs de la scène vous reviennent plus fous que jamais le trio magique le trio de choc qui explose les réseaux sociaux trois véritables phénomènes les meilleurs de leur génération les maestros les plus puissants de la comédie vous reviennent dans Keur Saner les dofs de la scène les plus fous de l'espace théâtral sénégalais cey fu ñu jëm cey fu ak Saner ak Mbandumbe ak Saner ak Ñanku le golden boy du théâtre sénégalais kan moo gën a dof ci ñett ñi à suivre dans spécial Tabaski sur Sénégal 7